Bienvenue sur Salam Vision. coowal garab yu bon yi la faux médicament yi ko leeral moo ma ca jaaxal termine xam ne ñoom ñoo la wax fa mbaxane ne kay ah xam ne ñoom leen tuumal laa la wax nee na gis nga coowal produits xam ne bu nar a mit lool ba dana sens ta dana merci la ilaha illallah Abdoulaye Diouf ne gis nga ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci boppam kon cuune la may wax mu naan crime lan moo fii nuroog rey nit quel crime critique yéene kaa ne coow loolee nga xam ne moom lañ ah. daal daal dina ñuy yëkkati nag ay kayit ba nuppi kon seetal nag seenu client ba ñu daal di xam le ne direction de la pharmacie ci boppam mais moo signé kayit gi wane ne seen client bi lée deful dara avocat wu chinois yi yemuñ ca ndaxte gis nga coow lii ngay gis nii waaw tongal la ngir jéem a écarté éliminé kon ab concurrent koo xam ne wuju ca mbir ma enquête yéene kaa coowal médicament yooyee garab ya njaaf ca paduwa waaw tuuma ci kaw tuuma la de tuuma ci kaw tuuma la de parce que nag waa duwaan bi la ñu génnee seenu kàddu ba nuppi direction pharmacie ak médicament ñoom it nee nañu seen nga ñi seen ca laa wax parce que woon professeur Yérim Diop ne leen ah kay il y avait bien des médicaments ay garaban ci woon laa la ay avocat day ko ci coowal médicament yi nga xam ni kon santaane wuñ ko ñu jaay ko Sénégal gi de waaye yow maître ak ñama àndal am luñ fàtte wax ci seen conférence de presse bi kay Cheikh Mbacke gisee gi ne dama ne maître El Hadj Diouf ak ñama àndal waaw xanaa dañoo yi ak seeni étiquette ñu def ca daay te loolee ña ko fekk ne ca dépôt Padoa googe maître ginnaaw bañ ne yaay booyoo erreur dafa am kon ci traduction ba ca wàllum étiquette ya soppi lañ ca bind yooyu bind ca lu mën a liir xanaa dañ koo fàtte yéene kaay Cheikh Mbacke gis nga yemu ca parce que libération nee na dama ne Ba ñama àndal dañoo ne gaa ñi lée ñi leen toppee mbirum wuyu association de malfaiteurs jël bakkatu doomu aadama yi kon lal ko ci kaw xottu gerte mise en danger de la vie d'autrui ak trafic international de médicaments ak waa joojee ñu naan daabo nga xam ne ñoom ñoo doon joxe kon alcool ba ardi tali waaye xanaa ñoom metti laa juuf dañoo fàtte société pro pharma biomédique bi nga xam ne moo doon séddale ak a distribué te ci greffe yi xamuñu ko inconnu la moom société boobu réew mi quotidien ne gis nga scandale foo médicament yooye waaw cooli cooli wér gi day mooy na mbir mi leer na yoon def liggéeyam rek kese force doit rester à la santé dëgg la direct news ne gis nga daa tey ci Abdoulaye Diouf Sarr mi ak garab yu bon yi mar di tali waaw parce que Abdoulaye Diouf ci boppam xam le na ne képp koo xam ne tax nga ca mbir moo mais danañu la daal waaye mbirum faux médicament yooyee ñaata yoon la fi te ñi nga xam ni kon dañ leen tey tudd yëpp dañ naan may dem seen yoon kaawuri jàlloo ngi ni lé jiite woon nag fas trafic de médicament ñu daal di koy gracier mu ne may daal di kon dem ñooñee nga xam ni kon dañ leen di tudd ñoo fi jot a jaar du nuroo rek ak chinois yi encore moo ma ca jaaxal la jaaxal eh, yaakaar ci tas la jëm de tribune yéene kaay nañu bennoo bokk yaakaar ak élection locale yi ñu jëm ni waaw boo sàgganee ca tas la jëm de ca diwaanu Louga ak Thiès ca Kaolack ak Ziguinchor ku ca nekk yaa nga bëgg a looloo leen di tas demal ca diwaanu Louga gële Moustapha Diop a fa ne Mamour Diallo Aminata Mbengue Ndiaye Omar Boun Khattab Sylla DG Dakar Dem Dikk demal ca diwaanu Linguère Aly Ngouille Ali Sala Diop Samba Ndiobène lu bari waaw léegi ay stratégie rek lay tege moom soow indi Yankhoba Diattara waaye Aliou Sarr nooto jobaa sanga ba ak Habib Niang Abdoulaye Dieye ak Habib Kane demal ca Mbour Omar Youm ak Sophie Gladima Sibé ngay rayante demal ca kaw la gële Mariama Sarr ak jëkkër ja Mohamed Ndiaye Rahma def nañ seen bureau soow waaye Diène Farba Sarr a nga fa Pape Demba Biteye Baye Ciss Baba Ndiaye demal demal ca Kolda gële Mamboy Diaw Abdoulaye Bibi Baldé dañuy rayante boo Bayro Diallo waaw yéen kaay dee média gi ne boo bëggee dégg dëgg daal waaw Benno Bokk Yaakaaru Macky Sall bi ne ca tas la jëm 24 heures yéen kaay ne élection locale ci Ndakaaru njaajal joob waaw ay waay ci kan lañ mën a yaakaar ngir commencé gént nag di rêvé rayante Benno Bokk Yaakaar bi day pour mu gagné candidat opposition bii day dana jafe de te ndaw tamit seen ñaxtu baa ngi fii taxaw ba léegi nii laa la wax ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Macky Sall ah, a waaw Barthélemy Dias gu bees gi lé mooy nañ leen delloo Khalifa Sall yëfam la la wax dox mbokk bi Barthélemy Dias tàmbali waaw mooy lu njëkk li ci jaar jaaru candidat bi nga xam ne Ndakaaru la fii la sosoo fii lañ ko defare te fii la mage made in Dakar Sud Quotidien xam nga élection locale yi sa jàppaguñ dati ba ni lé waaw waaye teewul day ma nga nekk ci guddi gu bët setagul la la wax ah ah waaw waaw parce nga xam ne ñoom lañ xamee woon Dakar gi lé lu mel ni Khalifa Sall ay Amadou waaw ñoom instant dañoo kale kak Dakar nga xam ne mosuñoo ko ah

waaw Val Joojo Njaay nee a def mooy am na ay politiciens yoo xam ne day ñàkk gis-gis ku sori moo leen jàpp ba ñu dëkkee di ñu saagare di ñu saagare Omar Sow bu APR day conseil président la ci source a waaw nee na man dama am lu mën a xarit ma xoolee ca Touba ke ñuy séddale ceeb ba di jox nit ñi ay kilo ay kilo xaw ma lan te ay tonni ton lañu yóbbu ca ba laa la wax ngir dimbali nit ñi président ci boppam kon day dimbali bay jégal yenn responsable yoo xam ne day seen wàllum liggéey yooyee impôt bi président di leen am lu mu leen di jégal ca mbir ma président yemu ca COJER kii Moussa Sow jiite waaw juróom-ñaari million la koy dimbalee weer wu dee wu ne ngir ñu ciy régler la wax administre di jàppale Omar Sow may wax du locales yi dama ne la Macky Sall Touba mooy bërëb boo xam ne mënu koo jël box fab li ne série télévisée di théâtre yi lée Alima Gadji ak Miriam Ndiokh waaw daal dina wax jaanama yi nga xam ni kon moom la ñuy dund dund gi mi lool parce Alima Gadji mi lée maîtresse d'un homme marié waaw nee aar bi bu ma ci gisulee sama bopp daal bu yeboo ma dem toog Miriam Ndiokh nee di dundee aar ak ndox mu sel war naa rak am na xam ne nañ am rôle rek loolu a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 observateur xëyee nataalu président de la république ak waaxu wu dëgër wa yéenekaay bi ne doxin beneen la jógtee ngir yëf ya bar gën a gaaw gën a ànd ak résultat yéenekaay bu groupe Futur Média ne ba fi coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr jibeeg léegeeg fitna ga mu àndaloon président Sall daa soppi na muy jiitee équipe ba ci wàllu management tey la gën a may gët ñu ne dossier ku ca ne na ko noonu it euh, fa ca toll ak la nga ca def yéenekaay bi jàpp ne tey la gën a wax it ak askan wi mu mel ni yëf yi ak yeewu da caa am fenn fu gëmmoon gis na ni parti bi APR war na gën a yëngatu te joxe na ci ndigal yéenekaay bi ne looloo waral meeting yi nu fi dund fan yi ci ginnaaw ak yenn ci responsable benn Benno Bokk Yaakaar ak APR ci gox yenn ci senegal wàllu politique ba tey xëccoob toogu Ndakaaru Sud Quotidien ne yëf yi dafa mel ni combat bleu ya lay doon maanaam wàcc bees ya ndax mbër yëñ fi xamoon ci jamono ku ci mel ni xalifa Khalifa Ababacar Sall wala Amadou Ba seeni rëq-rëq ci wàllu politique daa mel ni ku leen ci ci rawante gi yéenekaay bi de Barthélémy Dias la nu fi gis jamono yi ci waajal gi ak ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr xëccoo bi nag ngir gox-goxaan yooyee Sud Quotidien dalal ci it politologue bi di Mamadou Sy Albert mu ne muy nguur gi di opposition bi faaw ku ne ci ñoom bis bu nu yeggee ci samp mbër yëpp fii ci ndakaaru tànneef yi doon lu jub waaye ñi nuy tànn dëppoog ñi askan yu bëgg waaye ñoom it mbëri ñu mën a doon kuy faj jafe-jafe askan wu ca ne ak goxam la tribune moom lu jëm ci wàllu leadership di xëccoo bii ngir ndombaaki njiit ci biir Benno Bokk Yaakaar la am ak njort moom njort ak tasaaroo la gis ngir mbootaay gi ci local yi ñëw dale ko Louga Thiès Kaolack Ziguinchor ak Kolda kenn ci conseil conseil spécial bu président daal Oumar Sow moom ci yéenekaay bi di source a daanaka na la mu guuxoon yëpp mu ne seen biir APR da ca am leen di am munuk nomination waaye président da leen beral salaire weer wu ca ne baaxee leen ko amit kilifa yeneen yu mu yombalal seen i mbir yu ci mel ni ay jéggal ñeel wàllu lempog yeneen ngir rek ñu mën a wëlbatiku ñoom it dem jàppale askan wi fu ci mel ni Touba waaye Oumar Sow ne tiit sax bu mu gisee ñenn ci ñoom di séddale ay kilo ceeb ak yeneen ca Touba ca moo ne ay toni toni ceeb la fa président yónnee ci gàttal moom responsable APR yëmbal bi ne yëf du ci président président moo dul génne ndimbal taxawu gi waaye responsable seen bopp ñoo dul jàllale maanaam dañuy daal ràcc jëme seen i poos ñoom politiciens yi Sénégal nag seen gis-gis soriwul weesuwul seen cati bakkan kàddu la yu Valdiodio Ndiaye membre société civile bu Sénégal ci yéenekaay bi di laas meeting yi fi benn bokk yaakaar doon amal fan yi nag moom ñàkk ñorok politique di maturité rek la ko gisee leneen nu mu gisee moom Valdiodio Ndiaye ba tey ci yéenekaay a Sisir ca Padoua enquête xëy ne gaañaa ngay joxante bal ba ku ne naan sa morom yow a professeur Yéri Mbagnick Diop di njiital direction pharmacie ak médicament ne ñoom ci seen bopp ñoo def lu gëstu bi di inspection bi waaye avocat ki gën a ràññeeku ci ni jàpp moom maître Alaaji Diouf la mu gis mooy bagage yi amuloon benn garab waaye ay jumtukaayi kër docteur professeur Diop ne déet amoon na kay ay garab ci vox populi maître El Hadj Diouf la ca ne yëf yi du ne tooñ gi nu tooñi kiliyaanam amul te nag dëkk na leen duñu ko mën a woon fenn mu ne fu nu gis ay faux médicament libération ne alaaji Diouf la mu fàttee wax nag démb mooy garab amoon na fa ak ay étiquettes yu leer ca dépôt ba ca padduwa ñañ ci jàpp nag libération ne ginnaaw seen ak jaar ci kanamu procureur retour de parquet lañ ci jële maanaam ak jaaraat ci waxtu wi di ñëw ba tey ci kanamu procureur capitaine Oumar Touré bu gendarmerie nationale les échos ne ministre de l'armée bi Sidiki Kaba yokk na benn fukki fan la ko daal di defal léegi ci wàllu kon gi te nag la koy yoot ci mbir yi sax mooy wàllu dàq di radiation foofee nag président de la république ci boppam moo ci mën a dogal ñu ne ginnaaw bu ko conseil d'enquête dégloo ba noppi takk deri Sénégal jàmbaare lool rawat nañu fare ci frontières yi waaye nag terewul càccum jur gi gën a tar ci yooyee frontière ci gis-gisab yéenekaay bi di la Soleil na mu ne ci département bu Goudomp la gën a méttil mbir yi nag ñeel càccum jur googee ñu askan wi lànk coopéré waaye sunu frontières yi yaatu lool yaraax lool maatam moom ku mawul fan yi moom it mu yaraax lool ndaw yi gàddaay wutali si bi di Ndakaaru jamono yi gune yi ñooy xëccoo biis yaak mag ñi Dakar de du gàddaayi ngir dem wuti koppar dellu étage wala jàppale ñu ne ragal koor ak tàngoor wa fa jamono yi ca Matam am peex la ñuy wut si Ndakaaru lamb ji Ama Baldé Modou Lô taxawagul ndax nag ak yoonal amugu ca ci kanamu CNG waaye Xaadim Gajaga ci sunu lamb di xamal promoteur ba Luc Nicolaï ne ko combat bi moom saison bii dina am sudul ak yow it di ak beneen promoteur Gaston Mbengue moom promoteur beneen sunu lamb ne jëlaat na toogoom ne Don King bu arène bu Sénégal ak juróomi affiche yu mu taxaw taxawal guy gi moom ci sunu lamb diggam ak rëg-rëg mu ne terewu ko nelaw benn yoon ca nag su bis baa ci benn minute la koy daan su arbitre di siffler muy dox ci kawam. Bienvenue sur